alima doon tey ma woy ndongo loo initiative bu baax la lu neex la te xam nga lu amul ci koñ moom lu fi door a am bu amee dafa raar. tu te lu raar moo nekk loo xamante ne dafa dafa sacré te tey dafa neex ñu bokk koñ ñun ñëpp am na ñoo xam ne classe lañ bokkoon gëj nañoo gisee et tay li daf ñoo boole ñu dajalo ñun ñëpp nekkaat benn tu comprends et que loolu dafa am amour bu muy yee ci nit ki te dafa am lu rëy lu muy def ci nit parce que gëj gi gis sa morom xëy un bon jour benn affaire bu ndaw ñu naan def te yàlla tax déjà tur rek lu ne la wax yaa ngi dégg parce que defoo pour xaar ñu remercier la defoo pour xaar ñu fay la da ngay def te xaar ngërëmu yàlla est-ce que xamoo ndax di am wala doo ko am tur bi rek lu ne la tu comprends léegi def te yàlla tax mhm. bi nga sa première année wala lan bi mooy sama première année. waaw lan moo gën a touché si def te yàlla tax am na loolu si laal. bon li ñuy def pour ñi décédé ñeeg yooyu noonu hommage yeeg affaire yooyu noonu. comme kan. Euh, comme Fatou parce que sama meilleur ami woon ku ma gis depuis temps CP ku ma gis gis ko. mooy rakku mooy rakku Babacar Sarr. Babacar mooy Rokfadi Sarr fu ma gis gis ko et tout te it maa ngi gisaat ay turu ibrahim Ibou Balla affaire yooyu non ay Ibrahima Seck te ñooñu ñun ñep ño bokkoñ tu comprends donc ñom bu len fi yalla wàññee te mu nekkon te ñu nekkoon ay nit yoo xëñ ci société bi ba tey ndax ko luñ fi dara euh naa mën kon tay ji ni bu ñu mobiliser woo pour ñun ñom ñu defal len dara bu voilà tu comprends buñ fi nekkon ñom affaire bi da leen di neex parce que ñom da leen di neex ñom aussi tam ñu doon rendre hommage ñeneen mais malheureusement ku yalla di ku su yalla bëggee ñun ñëppay ñàkk mënuñoo xëccoog moom. kon dañuy sant yàlla. ok ki may jaar yi jaar si son xaritu tamit euh, Fat Sarr la mooy Thiat Sarr léegi euh, dama defaat tout. li ma doon tey ma woy pàcc ndongolo.